assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu yéen samay mbokki jullit noo ngi sant borom bi tabaraka wa taala di julli ca yonentam ba sallallahu alayhi wa sallam di yëkkati sunuy loxo di ñaan borom bi mu defal ñu jàmmi àdduna ju sax dàkk defal ñu jàmmi yowmal qiyaam defal ñu tawfiiq ta defal ko mboolem jullit yen samay mbokk bëggoon naa leen a jox benn nettali nettali boo xam ni nag du ay sos waaye nag dëgg la noo ngi muslu ci borom bi tabaraka wa taala di tasaare bépp xibaar bu dul dëgg nettali bii nag dafa am solo am jàngat bu mag bu nekk ci biir looloo sabab ñu di ko nettali te ak waaraateen ci maa ngi ko jële ci sama mbokkum jullit bu ñuy wax Moussa si ca Pikin ca Ndakaaru benn soxna la woon joo xam ni da doon aji màkka ànd ak ay mbokki jullitam di aji kom ni ñépp di ajee màkka ak gii nag ma nga amoon ca atum 2007 kon boobaak léegi am na fukki at ak benn ba ñu àndee jóge ci seenum réew réew ma nag daanaka sénégal la ba ñu àndee ba àgg màkka jubali kaaba ga war a def seeni mbir nag ci mbirum aj waaye soxna si daal su jàkkarloo kaaba gi rek du gisati dara te su wonee ginnaaw kaaba gi nag tàmbali di gis comme nam daan gisee waaye moom daal su wonee kaaba gi kanam du gisati dara day doonub silmaxa waaye nag su wëlbati ko wan kaaba gi gannaaw tàmbale gis nam daan gisee mu def ko ay yoon mu jaaxal ko ba mujj yàgg rek mu daldi yuuxu yanu loxo ya yuuxu woy man woy fa ma jëm mbokk yene ko déet lu xew mu ni man daal suma jàkkarloo kaaba gi du ma gisati dara te suma ko wanee ginnaaw di gis lépp loolu ma joyloo mbokk yi ñëw dar ko di xool ñu xool gis ni bët yi daal dara nekkut ci waaye buñ ko laajee mu ni gisuma kaaba gi waaye nag suma wëlbati ko danaa gis lépp ndekete am na borom xam-xam bu mag boo xam ni ma nga fa woon daanaka sax moom it dëkk ca boori dëkkam bii di Sénégal daal ñëw ni ko ndax yaa ngi gis kaaba gi soxna si ni ko déedéet gisuma dara mu wëlbati ko wan kaaba gi gannaaw mu ni ko ndax yaa ngi gis mu ni ko maa ngi gis kay lépp maa ngi koy gis ah boroom xam-xam booba nag ni ko kon dey dangay bàyyi ba nu noppi ci lañuy def après ñu gisee ñu waxtaan ñoom ñu continuer seenu aj def li ñu war a def lépp ba noppi boroom xam-xam booba woo soxna si ni ko kaay ñu waxtaan ni ko nag dama bëggoon nga wax ma te bul ma nëbb dara ndax liy jot jot na gannaaw dee soo ma nëbbee feebar bi mën naa bañ a saafarawu soo ma waxee lépp nag yàlla mën na koo saafara soxna sa ni ko man day duma la nëbb dara loo ma laaj ma wax la ko boroom xam-xam ba ni ko dama bëggoon nga fàttali ko ci àdduna lan nga fi Jeff a jëf jëf joo xam ni jàpp nga ni daal jéggi na dayoo ci mbon loo fi mas a def soxna si ni ko man day xalaatuma dara jenn jëf daal laa xam ni moo yées ci samay jëf boroom xam-xam ba ni ko muy ban soxna si ni ko sama ñëw gii ma ñëw màkka xaalis bi jógewul ci samay loxoy bopp waaye mi ngi jóge ci sama doomu wujj sama doomu wujju bii nag am na mag waaye magam dafa gaañu yaayam it dafa génn àdduna teg ca moom nag moom la yàlla wërsagal ba mu dimbale ma may ma lu ma paase ba ñëw màkka lépp moo ko def waaye nag soxna si ne ko man dama sëyoon ak sama boroom kër muy pàppay ki ma indi màkka tey waaye ma sëy moom lu yàgg awma doom ginnaaw ba sama jëkkër takk jeneen soxna muy sama ñaareel soxna soo sa ñëw fa sayeg sama jëkkër lu mat ab daa di taawlu am doom bu góor doom jooja mu am nag metti ma lool di bon sama xol bi saa su nekk ba benn bés yaayam dénk ma xale ba di sangu ni may xoolee xale bi sama xolong ci bon ma iñaane ko lool mbir mooma ma yëkkati ab puso rek daa koy jam ci nàmpatalu xale bi bés puso bi ba mu jeex tàkk ci biir daa koy mëpp mëppal bàyyi noonu xale bay jooy nee na ba yaayam génnee xale bay jooy ñu jël ko di ko nax teelu ñu seetlu mbir mi ñu nekk ca ba mbir ma trop tard la xale ba génne àdduna ñàkk bakkanam yaay ja nag muñ na ko waaye terewut am na lu ko mett ci xolam ñu toogaatub diir mu amaat doom waaye yaay ja dafa ñàkk ba kanam ngir naqar wa ko amoon ca taaw ba ba léegi xale bii mu fi bàyyi nag ma jël ko di ko yaral sama bopp comme gisatuma wujj sama xol bonatul ma nekk di yar xale bi xale bii nag moo dem ba màgg ba tekki yàlla may ko wërsëg moo ma indi màkka soxna si nag ni ko jëf ju bon jama defoon magam ja jàpp naa ne daal moo yées ci samay jëf boroom xam-xam ba ni ko kon ay la yéwén mbir maa ngoog noonu la demee daa koy jox xalaati boppam ni ko boo demee na nga jéggalu sa borom te jéggalu ki la indi Makka nga xamal ko li xew lépp tey saxoo di woor ak di def lu baax ak di saraxe ndax yàlla mën na laa jéggal bàkkaar booba soo ko defee ab diir lu yàgg ba yëg ni yàlla jéggal na la nag nga jéem a dellusiwaat màkk ba xam da nga gis kaaba gi soxna si delluwaat di jéggalu borom ba ak di woor ak di def lu baax nettali na ko nag doom ja waaye ñu jéggal ko ba nu demee ab diggante bu yàgg lool lu mataat ñaari at doom ja utaat paas ni ko kaay dem màkka waaye nag ba soxna si di waaj pour dem màkka ca la génn àdduna kon jotuta dem màkk lii mooy xibaar bi ëllëg ci yowmal qiyaam soxna si ak borom bi borom bi rek a xam ay mbiram ñu ngi ñaan borom bi tabaraka wa mu jéggal ko mbooleem njuumteem ki bàkkaaram te jéggal ñu ñu nit waaye nag nañu bàyyi xel am mbir daan naa leen fàttali lu bari ci samay wax naan jëf ju baax day des ci àdduna ba faw te loo mën a jëf ci lu baax borom bi dana la ko fay fii ci àdduna ak ëllëg yowmal qiyaam waaye it noo nii la lu bon mel boo ko jëfee lu mu yàgg-yàgg-yàgg dana dellu siwaat ci sa kaw te it li yóbbe soxna si lii mooy ak iñaan yéen samay mbokki jullit iñaan dey bon na ndax borom bi tabaraka wa taala digaloon na rasulullahi ni ko na muslu ci ki nga xam ni mooy aji iñaan ji yàlla ne ko wa min charri xaasidin ida xasada kon yàlla joxe na ndigal ni nañuy muslu ci képp ku iñaan te nag lépp lu yàlla joxe ndigal pour ñu muslu ca loola bon na yem naag seytaane kon ki iñaan ay mbiram bonna mok shaytané bokku atté rasulullah sallallahu alayhi wasallam waxat ni الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطبة ينن تب يالا بنيه إنيان دي لك جف جباخ كم نسوار دي لك مات رسول الله دل وخاتني وإن الحسد la yakulul imaana kama takulu naara alxataba yonent bi ne iñaan day lekk ak gëm yàlla comme ni sawara di mat kon nag mbokkum jullit bul iñaane sa mbokkum jullit mukk ci li ko yàlla wërsëgal loo mën a am gëmal ni lii la la borom bi jox santal ndax yàlla dolli loo mën a ñàkk gëmal ni loola yàlla la ko xañ te daf la ko war a xañ jaamul yàlla te ñaan yàlla may la li nga bëgg mbokkum jullit nit dana nekk ci béréb di def lu baax ak di ko wax ba ñépp jàppee ko ku baax waaye am lu xew rekk mu yàq lu baax lam daan def démb bum la ko jaral jigéen dana sëy ci kër di góor-góorlu ak di def lu baax ak di ko wax ba ñépp seede ko waaye nag boroom këram takk jeneen soxna xolub fiiraange juddu ba lu baax lañ daan def démb yàqu mbokkum jullit bum la ko jaral mukk ci àdduna nit dana nekk ci bërëb ci école mbaa ci bërëbu liggéeyukaay di liggéey di baaxal ak di rafetal ba ñépp seede ko di ko tagg waaye nag ñu affecté fa keneen ku ko raw ay diplôme xolub fiiraange juddu ba lu baax lam daan def démb mu tàmbali di ko yàq kon nag mbokkum jullit bum la ko jaral sa lu baax li ngay jëf ba borom bi dencal la ko bu la ko kenn yàqal gëmal sa borom tabaraka wa taala yem ci li nga war a yem te xam ne kenn ku ci nekk li nga war a am borom bi noppi na ca démb gis nga yéefar yi nga xam ni dañoo iñaane woon sax rasulullahi ak i saxaabaam yàlla tudd na leen ci alquran yàlla mu ni wadda kathiru min ahli alkitaabi law yarudduunakum min bacdi imaanikum kuffaaran xasadan min cindi anfusihim min bacdi ma tabayyana lahum alxaq faacfuu wasfaxuu xatta yatiya allahu bi amrih inna allaha ala kulli shayin qadir yàlla mu ni wa ahlul kitaab ña gëmul yàlla ñoom day dañuy bëgg yéen ñi gëm yàlla ngeen delluwaat ci ak kéefar ngeen yem ñoom ginnaaw bañ xamee ni lii yonent bi di woote mooy dëgg ga jógee ca yàlla waaye nag ña koy def ngir ak iñaan ak seeni xol yu bon rekk waaye nag yàlla digalul ñu fayu ko de yàlla nee na na ngeen leen baal te jéggal leen rekk bàyyi leen ba yàlla ñëw ki ay mbiram ndax yàlla mooy ki man lépp kon nag mbokkum jullit bul iñaane mukk sa mbokk waaye nag yow mi ñu iñaan bul fayantoo ak iñaan xaaral rekk ba borom bi ñëw waaye nag mbokkum jullit bul tooñ mukk saa yoo amee kàttan yaa jàpp ni borom bi gisu la loo def yàlla ngi lay gis moo tax waykota arab ba di wax naan laa tazlimanna ida ma kunta muqtadiran فالظلم آخره يأتيك بالندم نامت عيونك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم نينا بول توغ موك سو ديمي با ام كاتن ناخ توغ كات اك مجم ريتشو كسالا نينا مانغا تد نلاو سام خال دال وايي ناك كينيو توغ داي دو نلاو موكو ndax jamono jooja ma ngay ñaan jëme ci sa kaw te nag bëtub yàlla ba du nelaw mukk kon mbokk bul tooñ ndax yàlla du gëmm te du nelaw yàlla wax na ci alquraan mu ni wallahu alimum bi zalimin yàlla day xam na aji tooñkat yi kon képp kuy tooñ borom bi xam na la kon yow mi tooñ war ngaa tiit waaye nag mbokkum jullit waa dëkk ba nga xam ni borom bee leen alagoon toroxal leen yàlla nga koy nettali rasulullah ni ko wa zalamnaahum walakin zalamu anfusahum fama agnat anhum alihatuhum allati yad'una min duni illahi min shay lamma jaa amru rabbik wa ma zaaduhum gayra tatbib yàlla mu ni waa dëkk boobu ma toroxal alak leen sànk leen man yàlla tooñu ma leen mukk waaye ñoo tooñ seen bopp la ma leen wax defuñu ko def la leen neex waaye nag seen yàlla yi ñu doon jaamu ak di ko yaakaar mënuñ leen a jariñ dara ba défendre leen ci la ma leen war a def ndax samay mbir bu ñëwee kenn mënu koo téye seen yàlla yooyu ñu yaakaaroon de duñu leen dolli lu dul ak torox tànge ak sànkute sori yàlla nag teg ca ni ko rasulullah ni ko wa kadalika aqdu rabbika ida axada alqura wa hiya zaalima inna aqdahu alimun shadid yàlla mu ni ko te nii ma alagee waa dëkk bi toroxal leen sànk leen noonu lay alagee toroxal képp koo xamante ni bi dangaa tooñ ni ñoom teyit man su ma jàppee ab tooñkat dana xam ni sama mbugal metti na lool te tar na kon nag yéen samay mbokki jullit nañu leen bàyyi xel ci li ñuy def ak ci lu ñuy wax nañuy rafetal sunuy xol di yéene sunuy mbokki jullit lu baax nañuy rafetal sunuy pexe ak sunuy xel jëme ko ci sunuy mbokki jullit ndax saa boo iñaanee mu wëlbati sa kaw dal ci sa kaw saa boo tooñee mu wëlbati sa kaw dal sa kaw kon nañu jaamu yàlla te ragal borom bi tabaraka wa taala mbokkum jullit kon maa ngi ñaan yàlla mu defal ñu texeeg àdduna ak texeeg yowmal qiyaam may ñu ñu sax ci siraatal mustaqim ba keroog ñuy génn àdduna waaye it yàlla na ko yàlla defal mboolem jullit assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu